asalaamaaleykum suñu mbokk internet yu Teranga TV c'est toujours un plaisir di ànd ak yéen seen i différentes émissions alors tey déplacé nu nañ ci euh, li nga xamante mooy entretien du jour euh, prétexte bi nag mooy xam ngeen ni fête la musique tey la tey le juin ñu seet si euh, dofu Maam Bamba bi nga xamante ni xam nañ ko fii ci amitié crack Amitié 3 Crac donc euh, fii lañ ko seet si yàgg nañ di tourné mooy émission euh, di activiste rappeur euh, di nga xamante ni macha allah xam-xamam màcc na jëm ci jamono bi ni muy doxee saa yu ko laajee daf ciy wax gis-gisam tey ñu war a waxtaan ak moom maa ngi lay ziar. waaw auzu billah bisimilah inna wali yàlla maa lay delloo ziar Ouzin ziar nañ la bu wér. <laughs> mais dinaa ree parce que yow yee loolu laay sa jëmm ji laay ree <laughs> moytu du ragal quoi. <laughs> d' accord euh, bon tey fête de la musique déjà du ñàkk di ñu présenté fi ñu nekk nii di leen si ñëw mais bu fekkee dañuy wax fête de la musique d' habitude dañu doon faral di gis fête de la musique bu ñëwee Sénégal bi yëpp fu nekk day am ay concert ay plateau fu nekk mais dafa commencé deñ pour yow lan moo ko waral. waaw ah, peut-être euh, peut affaire culture Sénégal. peut-être ñoo xarañul ou bien ou bien peut-être seen objectif xam naa peut-être am na leneen li ñu prévoir mais comme ñun temps ñu nekkee booy mais lii bu amoon da ngay gis fête de la musique partout si quartier boo mun ci dem danga ko fay sentir au moins dina am ay podium dina am ay kii xam nga ay conférence ay exposition ay rapatak gars di def ay kii pour les jeunes mais léegi dafa mel ni musique bi c'est que pour les célébrités quoi ñi nga xamante ne atteindre nañ seen objectif quoi waaw Sénégal damay gis underground bi ñi si suuf duñ leen di bàyyi xel quoi te loolu dafa graaw si genre bés yu mel ni nga war a def ay découverte xool ay nouvelle révélation yi xool musique yu bees yi par waxuma ñi siw quoi ñi nga xamante ne atteindre nañ seen objectif quoi mais instant yi fête de la musique waroon na saf sàpp si dakaar Ndar Louga fépp Sénégal mais loolu ñi yore wàllu culture bi ñoom ñoo ko mën ndax moyens yi mu laaj dafa metti mais aussi tamit euh, collectivité locale yi euh, maire yeeg ñooñu am nañ ci responsabilité. waaw comme li ma la wax rek maire bu si ne bu doon sa commune di nga xool benn endroit boo xam ne c'est le mieux fréquenté nga organiser fa loo xamante ni jeunes yëpp dinañ mën a sentir seen bopp wala invité ay xale yu ndaw. di leen xam nga di leen expliquer ci musique di leen expliquer si art di leen expliquer ci lépp dafa dafa large quoi mais rôle yooyu du artiste bi kese moo ko mën def ci koñom peut-être yow il faut il faut nga am appui si maire bi walla ci état walla yaa ma a xam. mais est-ce que nekkul poli politique bi moo ñëw muur lépp parce que léegi nit ñi booy léegi ils préfèrent très chargé benn son déglu ko fait de la musique amaana sax xëy na bu ñu woote woon ñi dem taxaw du bari est-ce que nekkul politique bi moo dem ba euh, emporter waaw politique politique politique de mën na emporter Sénégalais mais dafa am loo xamante ne loolu loolu lii du politique quoi culture bu ñëwee da ngay jël politique tege ko fële ndax loolu ça concerne tout le monde ndax musique mooy boole xol yi quoi comme ni ñu xuloowee si politique guerre xeexoo mais bu amee musique am conférence am ay kii da ngay gis gars yi dañuy déggoo dañuy waxtaan boobaa dootul doon ay kii mooy kii kii mooy lii politique ak musique dañ ko war waaw waaw dañ ko war a séparer quoi peut-être ñi koy diriger quoi laa bëgg a wax. mais est-ce que nekkul yéen yéen a ñëw dugg ci politique parce que léegi rappeurs yëpp léegi pratiquement ñëpp dañuy politique. rappeur rappeur rappeur du politique rappeur day wax dëgg ndax rappeur li ko lii rôle mooy li nga xamante ne mbedd bi moom la ñuy kaas moom la ñuy jooy moom nga war a wax quoi est-ce que yaa ngi war nga war a revendiquer quoi ndax loolay sa objectif ñi nga xamante ne mënuñu wax yaa leen di waxal. moo tax rappeur mooy ki nga xam dafa dund mbedd quoi mais rappeur bi nga xam ne si kër màggee ak rappeur nga xam si mbedd la màggee ils sont diamétralement opposés ndax chaque jour ki nga xamante ne si kër la génnee kooku chaque jour objectif am mooy moom na réussir rek ki nga xam ne si mbedd bi la génnee kooku objectif am du xaalis bi quoi am na amaana xaalis bi si la bokk de mais priorité bi mooy xoola rage bi ñuy dund si mbedd bi ak lu ñuy subir moom moom moom loolu la bëgg élargir quoi ba ñëpp dàcc moom loolu lay objectif am quoi waaw. mais mais euh, gis nañ fii bon rappeurs yi léegi ay ak politiciens li tax ma damay insister parce que par exemple bu ñu jëlee exemple Nit Dof Nit Dof dafa affilié wu j'allais pas dafa jënd carte membre Pastef mais daf ci dugg. Euh, dugg ba mu ci dugg noonu est-ce que du dem ba ñi nga xamante ni xëy na apprécié wuñu Ousmane Sonko duñu ko mën a digérer ci côté musique waaw mais loolu choix personnel la quoi ndax nit moom ku si nekk am nga droit faral ku la neex si politique quoi ndax loolu affaire de vision la nga xam ne kii li muy wootee par rapport ak yow li nga gëm ànd ngeen si ku mu neex ànd ak ku la neex mais juste li ngay woote par rapport ak ki nga àndal na doon dëgg te bu si dellu ginnaaw quoi na nga ngoy ba woo kong ñu xam ne yow lii dëgg la moo tax ay genre Karim yooyu sax xaw ma neex nii quoi. waaw da damay gis ni ñii xoola dañuy ngoy ci benn affaire même bu leen nit yi di nga sax duñu bàyyi quoi nit daf tamit am na droit ànd ak ku ko neex choix personnel am la ndax li mu nekk du lu bon politique la te politique moom mooy ki nga xamante ne mooy ki war a defar sa dëkk quoi mais pas politique pour dee ay fen wala pour bëgg ay post wala pour bëgg ay millions di xeex pour loolu quoi après loolu fi axbaari sara iri bi dalay dal tôt ou tard daf dina leer si ñëpp ni yow sa objectif lii la woon te rappeur warul fen woykat yëpp mën nañu fen ba mu des rappeur rappeur booy woy sa histoire sa waroo fen Sénégal ngay gis rappeur buy ego trip am naa lii def naa lii def naa lii te da ngay fen am si buzz États-Unis boo woyee te li nga woy du dëgg jour boobu ngay wàcc si suuf xam ne yow doo dara mais fii ngay gis kii man nii man laa man laa man nii mais fekk fen la rek fen fen fen fen fen public bi ñoo leen imposé faux Sénégalais bëggul ko vrai de dof Sénégalais moo bëggul ko vrai boo vrai sax da nga koy xatal mais loolu choix la moo tax àdduna moom dafa am lu baax ak lu bon yow yaay xam rek xam ne yow lu baax moom boo si nekkee day yéex mais tôt ou tard dañ lay fekk si xam nga am na loo xam ne day xew ay dix ans quinze ans mais après day xew day am beneen génération buy ñëw ne booy mag yi fi newoon dañuy duul booy ñi doon woy du tus waxuñu fi woon dara booy ñii boo leen dégloo booy non ñu naan kii moo fi aagoon mais loolu mooy amaat. daf ñëw classe grand yi. parce que moom philosophie am dafa ñëw classe grand yi parce que xam na ne grand yi fi newoon abaar ay PBS ay daara ji ay ñu si nes yëpp ay kii lañu rek yaa ma gën a xam espèce su grand lañu ñu rek mais du ñu ay grand. nga am lobby. lobby <laughs> kay am na fépp. fii moom boo nekkee artiste léegi comme affaire de nawetaan la ay affaire de xumbaay da ngay dëkk caaro yi foofoo xumb da ngay génne son neexul sax ñëpp dem flow ko ñëpp dem vue ko nga am ay un million de vues télé yi gaaya fa nekk sax ay mboq affaire yi ah diw de sama mbokk la tër woo ko nga ñëw taf-taf nga siw te yow xam nga ne booy ñi nga bàyyi suuf ñoo la dàq way promotion la ba si football bi yeeg lépp da ko siy gis mais rap ñun xam nañ dëgg yi am na lu ñuy déglu mais xam am loo xam day xew taas mbaq gin bi dafa neex. xeweegul waaw ma loolu dafa neex laa wax gars yi loolu suñu culture la moo tax gars yi dañ ciy daw mais am na ñoo xam ne culture yi dañuy déglu dañuy déglu bu dëgër bi quoi pas bu dëgër sax mais li nga xam da lay yee looloo tax reggae grand quoi reggae reggae reggae yee ci àdduna. way bi lu mu neex neex neex neex da lay yee ba mare da lay yee ba léegi dañ koy mën a di déglu Tupac da la doon yee ndax ñooñu ay intellectuel lañu woon nekk dañ daan woy sex morning yëpp mais tamit si science quoi est-ce que yaa ngi dégg ñooñu seen musique du mës a nax saay quoi ba léegi danga leen di cons di si di si jëriñu ay Bob Marley ngoy ay ñeneen ak ñeneen ñun ñaan nañ yàlla fii am rappeur yoo xam ne ay texam dañ koy jàngale école man ñaan naa am loolu quoi gis ay rappeurs yoo xam seen texte yi booy mais loolu danga ko daan gis bu njëkk mais léegi jeex na ay rapajo fa la jeexee. fa la jeexee mais euh, dañuy taxaw tuuti ci fête de la musique euh, am na buy am terrain bi nga xamante ni mooy terrain akapes bu parcelle mais dañu gis ni RTS moo ko organisé moom moo def nit dof gis star RTS Pape Alé moom mooy leader bi RTS ñëpp xam nañ Pape Alé Niang ni mu meloon ci combat bi nit dof pare ñeen jàpp ni li tax ñu def euh, nit dof gis star c'est parce que dañ ko bëgg a récompense ah man peut-être peut-être mën na nekk dëgg mun na bañ nekk dëgg ndax man xaw ko waa lu tax ñu jox ko loolu quoi. est-ce ngi fi gars yi côté visibilité côté siiw côté. waaw choix la rek xam nga Pape Alé moom mooy xool quoi après moom mooy xool par rapport les rappeurs kan moo ko si gën a intéressé mu gis ne kii mën na liggéey moom peut-être moo tax xam naa mu woo nit dof invité ko si loolu jox ko li mu ko war a jox mu invité kii mu nekk guest bi moom la. mais di nga prôné quand même ñu yemale ñëpp quoi ñu fexe ba ñëpp mën di. mais moo loolu par force la. loolu da war a yemale ñëpp di dem si suuf di dem si diggante bi di dem si kaw ndax li ñu la dénk la li ñu la dénk nag moomoo ko xam gars dañ fi doon kaas léegi nag dañ la dénk léegi li la dénk nag mooy nga yemale xam nga six ak neuf ñëpp. njaboote ñëpp xam nga njaboote sa njaboot rek dafa yomb mais njaboote ñëpp loolay loolay kilifa mais du parce que de laa dénk rek nga ni léegi sama njaboot ñii ñoo doon xeex ñii laay defaral ñii xeexuñu woon déedéet président wu ñëpp nga directeur RTS wu ñëpp nga ñëpp nga war a invité mais fii mais fii da ngay gis fii il faut nga def yëfu dof fu con pour ñu invité la dangay ngay def yëfu dof ñu lay invité ndax moo parce que sénégalais yi journal yenn affaires yi dangay gis ne ñi compétent yi yoruñu yoruñu yoruñu affaires yi quoi yoruñu ko yoruñu ko man dof maa mbaam maa ngi ni gars yi ko lii bandi nii na man ni day nit jël na sama son sax woyaat ko ñëpp invité ko tele yëpp pour te dire fii te bu doon feneen la dinañ def source bi xool kii ay lii fan la jóge nii kii lan mooy dofu maam Bamba man bi may créé dofu maam Bamba Sénégal ñëpp doon kaa Serigne Touba amul dof léegi yaa ngi gis ay dofu borom daaru yaa ngi gis dofu Baye Ñas yaa ngi gis dofu lii dofu ama dofu lee dofu lii mais ñun loolooy suñu mission peut-être suñu yëf nag day yéex waa ndax sëñ bi moo koy bëggee doonu quoi mais lu ñu mënti def tamit après da ngay gis gars yi duñu copier parce que dëgg la loolu kese la. ba ban ban message ngay lancer pour ñu éviter au moins affaire bañ am lobby bañ am ay clan bañ am ay rappeurs yi ñoo doon nekk si ñoo doon wàcc ci ñoo doon waaw nañ nañ nañ jël ñi nga xamante ne seen xel nàcc na si culture jàng nañu loolu xam nañu yàgg nañ si yàgg nañ si ay ati at fii am na fi am na ñoo xamante ne seen xel xarañ na si loolu. jéem ñu xool kii mooy kii wala kee mooy kee la bonne musique la ñuy seet parce que la musique c'est l'art du combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille loolu la ñuy seet xam nga léegi nag loolu bés buñ ko amee mooy égal lépp dina parfait mooy comme niñ doon xeexee président bu jub noonu la ñu war a xeexee tamit ki yor culture mu nekk ku jub koo xam ne du différencier dara. mais mais Wally Seck moom la ñu nommé ambassadeur RTS. jur na coow parce que nee na sa genre yi ay ay ay révolutionnaire activiste ñoo war a bi bi mu méttee ñoom ñoo taxawoon wala gis ñu ko woon fenn mu au moins poste sax ñaawlu wala dal ci ñi rey yi noonu rey xale bi yëpp la xale yi fi la fekkoon waali ñu jël ko def ko nommé ko ambassade RTS non. waaw mais waali waali peut-être peut-être moom xeexam c'est par la musique moom peut-être par ay am lay xeexee wala peut-être mi ngi xeex noo xamante ne invisible la loo xamante ne nit yi gisuñu ko. man munu ma ko ngàññi ndax xam fréquenté wu ma ko ku si ne am nga lu la doon metti am na ñu doon toog seen kër di xeex par ay neneen ak neneen mais peut-être moom style du ay génn si mbedd bi di xeex wala loolu. mais lu xew ba ma xamee wala de mais da nga wàññi xeex. xama xama xama xama xama xama bandi du nettali quoi jaroore borom a koy nettali man moo tax yëfu jàmbur nii koo xamante ne man ak yow dunduñu. man man man Dof Ndeye rek nga may wax Sénégal moo mën la wax ne kii lii wala lii wala laa mais Wally Seck ñu wax nga man xaaral man Wally Seck man Wally Seck dama koy bégee comme ni ko ñëpp di bégee rek tout juste ndax sénégalais la mu nekk booy Sikaab li mu nekk booy Sikaab ma dëkk Sikaab moo tax man dama koy bégee mais man duma déglu mbalax mais moom aw ma ŋaañ ak moom aw ma lenn si moom gisuma dara lu ma metti si moom quoi mais bi am na benn jour euh, ñëwoon nañ fi benn jour ah, yaa dof ndey ngeen attaqué ñoom Simon attaqué grand yëpp mais léegi yéen na ngeen changé quoi lan la neen ragal wala neen ragal am neen ragal gars yi wala yéen yi ngeen ragal link yi ngeen bañ a. <laughs> non ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu duñu ay yu mag ñooñu duñu tus man ay siwo ay nii ay naa ay nii man ñooñu noonu respect la rek ndax bu dee xam naa ay benn at ñaari at la ñuy magee ay yooyu noonu du dara mais ñooñu. amul lu may ragal si ñoom wala di daw peloton seen ginnaaw amuñu fi lu fii ban fii kan moo fi am lu fi kenn am. nañ gem nag parce que yow déjà doo ci see loolu moo tax mooy link bi boobu doo si dem. man maa man maa musul bokk si ay lobby ak ay man maa musul di woo kenn naan la dimbale ma si lii wala dama bëgg jouer fii wala dama bëgg def nii munoon naa ko def comme yenn gars yi génn di fay gars yi ñu lay kii am ay interview am ay télé am ay concert. di leen pëtëxlu du ma ko def ndax man dama mës a nekk bañkat kon nag du ma dem ba ba di way nag après nag di mujjee di mujjee nag di naan la gaa dimbale ma. sa commune defoon ngeen gifoon ngeen benn son de yaa yaag euh, tudd yaag Dof Ndeye. Dof Ndeye moom Dof Ndeye moom sama lépp la kooku moom dañuy def son dañuy way man ñame naa ko laaj lu ne moom ñame na ma laaj lu ne. assumé xaritoo bi quoi. ma sama vrai xarit la du ma si daw saala yaay mbay ma neer barki Serigne Touba ndax moom ni mu ma bëggee. gisuma nit bu ma ko bëggee daf nday bu rek waaye waaye. mais sa daf nday yaa ngi koy conseillé bu da nga koy jariñ nag di ko conseillé. Eh, conseillé yow yaa ma gën a xam daf nday yow xam nga xam nga lépp suñu diggante daf nday xam nga ne dama koy wax dëgg ndax dëgg la ñu sëkk barki Serigne Touba lu dul dëgg dum ko ko wax ndax nit ku baax la amaana nag. boo koy conseillé ndax di ko conseil si yenn comportement yi muy def parce que am na xam nit ñi faat bàyyi nañ ko ñi ko doon def ñu bëri ñu si jeel bi mooy ay coow ay détails ay génne arme loolu loolu waratu ko daf nday mag la léegi léegi waratul nekk si yooyu yooyu moom dam ko koy conseil every mal fucking day dama ko naan mais tamit moom dof la da ngeen di xam koy sàkketoo rek. moom xaaj yaayam xel mi neexul mais moom du dof. moom moo gën a dof dégg nga xam Sénégal. tant que dofoo bay yenn say kii rek moom moo lay gën dof ñoom. dof la daal ba wàccee fi kenn ñu naan dof la dof la. ana ay këyit parce que moom tamit du tooñ mais gars yi dañ koy tooñ moom tamit loolu la rek moom du tooñ quoi mais gars yi dañ koy tooñ. moom vidéo bi ñu gis démb coow na bur na Sénégal. man. xam naa bëggoo ci wax mais yow man la maam Bamba man nag yow xam nga kër Dof Ndeye. yaa njëkk def émission ak Dof Ndeye siwloo ko Sénégal bi dangay dem ba këram. nga ni ko dof ndey sa problème bi may dégg moom dina la wax man lool du man ax Ahmadou man. man li ma leer li ma leer yaa te ñeme naa ko waat mooy dof ndey. maa ngi woon sama kër. xaaral ma expliqué pour nit ñi xam xaaral ma pour nit ñi am affaire bi amoon Ndofane su ma juum la nekk mën naa juum mais Ndofane bi wax xam man Kaolack la nekk booy bi gis nañu video bi muy jam booy bi mais li jiitu. li jiitu xëy na vidéo boobu ñun gisuñu ko mooy bi booy bi bi mu ne booy bi dafa toj yow du ñàkk am nga au moins version bu dof ndey bàyyi man ah, woo na la expliqué sax ni la naka la demee nga yow nga mën nga xam au moins. man temps yëpp yoruma kóol. yaa ngi daw eh, maa mais xaritoo da nga koy assumer non. waaw Dof Ndeye yow yow man am nga numéro. ma jox la numéro waaw léegi da ngay dem ba këram. léegi li ma la bëgg a laaj laaj mooy léegi li a laaj mooy fee bi ni mu amee du ñàkk yaa ngi koy ñaawlu. parce que ñu ngi naan booy bi jamono bi mu ci euh, dans le commun ñu ngi naan jam na ko jam ko. si ñun culture moo ñu fi wax si culture bi wax si ñu musique bi waaw doo wane sama kër. lii yëpp nañ ko wane. sama kër dinañ wane fii dinañ dinañ wane wax tur bi lépp dinañ ko def mais li ma bëgg laaj mooy par exemple nit man su may xaritoog yow daf euh, daf man bamba man dama lay jariñ wala dañuy jarañante tey puis du ma damay assumer suñu xaritoo mënoo ñëw ba fii nga nekk gaynam ma lay laaj. yow bu dee conseil boo koy conseil sénégalais xam ne au moins am na benn xaritam boo xamante ni mu ngi koy xelal lu baax man foofu laa lay yóbbu quoi mais pas nga naan ay non booy bee tooñ ak ñaata yoon ñaata yoon nga ma def émission naan ma nan nga ko xelalee ma lay wax léegi mais tamit chaque jour man tamit di répéter di répéter. li ngay conseillé defu ko parce que benn ñeen ñi jàpp nañu waru ko woon jam ma bëgg approfondir wax <laughs> ñi jàpp nañu waru ko woon jam ñeneen ñi jàpp nañu filmé bi booy kaay ñu ngi koy dégg même bu dee moo ko tooñ ñeneen ñi war a nit bu ñu la tooñ ngay fajal sa bopp waaw dëgg la dëgg la mais peut après da ngay dem si moom rek xam naa ne affaire yi moom après moom dina la gën expliquer réellement nu ni mu demee quoi parce que man mënu ma nekk à sa place di expliquer nii quoi ndax moom moo dund événement bi yow xam nga këram comme ni ma xamee <laughs> demal këram <laughs> nga ni ko def nday <laughs> laaj ko moom dina la wax lépp nu mu demee. mais xaw a tiit tuuti ci cas bi nu mu demee parce que ku nekk dans le commun forcément. ko moo xale bi booy. ku booy kan moo la wax la. ah man de lool maa ngi koy door a dégg sax. moom man man man loolu yëpp gisuma ko nag ñu nag. Euh, ndax plainte am na wala police teg na ko loxo wala teg ko jàpp ko police jàpp na ko wala jàpp ko wala convoqué nañ ko wala convoqué. ay sëñ Tuubaa man lool xaw ma si dara. wër ndey yàlla. lool da police si xam dara doo dem kër Dof Ndeye nga laaj ko mooy yow gars yi dawal ma yor ma ne tamit. mais da nga da nga da nga tiit wala da ngay bañ ñu woo. ma mbaa ma wala dof dof boole dof bee léegi nag ni nga ma xamee noonu nga nga xamee da ngay ma si moom. jaloore borom a koy nettali. lii du jaloore. <laughs> waaye la bu baax ak ko mu bon jaloore jaloore la. moom moo xëy nettali après moom dina la wax fee nu mu demee. gàtt gàtt di nga compatir quand blessure xale bi ak li ko si mën a. kan moo gaañu. <laughs> dafa am boo waxee ni Sénégal dañuy yaakaar na nga néewul affaire jàmm. man de man de bàyyi yow yow mu yaa seetaan ay vidéo man gisuma loolu man gisuma loolu. man man veeru man li nga wax rek laa gis li nga wax rek veer veer bi toj laa gis man. oui man loolu. en tout cas en tout cas euh, bon ñun moom wax dëgguñu yàlla. comme ni ma la ko waxee xam nga. dafa yàgg du tey xam ne nangoo ci wax <laughs> mais li ma la mën a wax mooy tey boo amoon conseil booy conseil ñi nga xamante ni de temps en temps bu ñu meree rek dañuy génnee arme non loolu lañ si ñëw am nañ temps on a largement le temps mais ne ñi nga xamante te jamono boobu nag ñu ngi koy bëgg a weesu ak fi ñu jëm nii loolu est tamit doo ko ci yedd tamit. man de aw ma ñenn ñi nee na booy bee ko doon jam mu foqate arme bi di ko jam. information yi si am sax man aw ma ko si man xaw ma si lii yëpp. barki sëñ Touba moo tax yow li nga may wax nii sax man mi ngi may jëlee kaw mais da ngay dem si Dof Ndeye rek boo teew moom dina. ah Ousseyn Ousseyn bàyyi ma nga woo ko ma laaj ko suñu ko ma amee dof lu xew. dof maa borom nga woo ko. direct loolu fan la dafa nekk si loxo police. ah xaw xaw xaw mais mais moom boo dafa mel ne saa dafa mel ne euh, safara ak caas maanaam dafa mel ne moom yow moom yow yaay glace gi. moom mooy kaani gi man bi xaritoo mosuma koo gis. <laughs> waaw noonu la zaahir ak baatin la <laughs> xam man damay seddal man moom yan yaaram laa wa taalibe Sëñ Tuubaa Baay Faal laa man moom mooy loolu. mais day seddu bi. jàpp nga naa du mujj fenn. waxuma ay du mujj fenn ak ay yooyu de man xaw ma si yooyu man waxuma loolu yëpp. yow daal demal si Daf Ndeye nga laaj ko say question yi. d'accord euh, le temps le temps ñu koy ñu koy bàyyi mu kii euh, mu mu soufflé tuuti <laughs> ndax xaw nañ ko accéléré tuuti mais c'est normal tamit xaw ma man man su ma toogee ak yow man dafa maa mbaam su ma toogee yow nit ñi dañuy gis Daf Ndeye maanaam loolu. maanaam su ma nee gis Daf Ndeye maanaam dañuy gis ni kii xaritu Daf Ndeye la maanaam nit ñi dañ xamee te yow nga ko ne nga sa nit la. mais loolu du ma si daw dara sama nit la te du ko mos a sama nit la ba ilaa yawmi diin ndax li ñu relier dafa fort quoi du ay affaire yi yeah. mu ni ma gën neex si moom mooy moom nit ku baax la nit ku am yërmande bëgg nit mosuñu ànd man ak moom mu tooñ doomu aadama ànd man ak mu sàcc ànd man moom muy agressé waaw waaw bu ñu àndee kay ku ñu tooñ moom loolu moom la bu ko deexee nit moom bu la tooñee bu la neexee nga baal ko bu la neexee nga lijjantil ko so nga def loo si mën soit nga dem police wala nga xeex wala yaa xam rek après loo si subir mooy lool mais tooñ moo dul gàllaaj quoi ndax nit moom waroo tooñ doomu aadama quoi waroo gis doomu aadama bi mel ni yow nga xëy tooñ tooñ moo dul gàllaaj mais léegi nag boo tooñee nag doomu aadama tamit après ki nga tooñ moom mooy am xolu yërmande wala amu ko rek loolu kese la mosu leen ànd mu def dara mosu leen ànd mu agressé. mosuñu ànd mu sàcc ndax duma sàcc mosu ma mosuñu ànd mu agressé ndax du ma agressé a ji daal lu ñu ànd mooy yëfu Baay Faal di ànd si dëgg di ànd waaw bi ñuy xale ba léegi <laughs> si dëgg lañ mus a ànd ànduñu si ay folklore ak ay yaaman ne woon ma ne la déedéet xam waaw bala ngaa lancer message fi ñu nekk ak projet bi ngeen nekk di liggéey li xew camp pénal en tant que sénégalais ndax am na ñu ay frères donc du ñàkk metti na la ah, dina ma metti ndax képp ku nekk kaso moom waaye da ngay xam ne kii nattu nattu la am quoi ku am nattu nag boo ko bëggee dolli nattu nag day gën a metti mais xam nga kaso kaso dafa metti kuñ fa tëj moom waaye da nga ko war a dawal yërmande tuuti surtout yenn genre yi am compréhension xam leen la mais fii Sénégal. fii dara baaxul quoi fii lépp lépp dafa metti ma xalaat da ngay gis ay benn booy boo romb ni taf muy tox benn joint policier bi jàpp ko lu mu koy def dugal ko kaso quinze jours mu commencé miin koo xam ne kaso bi ñuy nekk ñun ñëpp kumpa da day nekk lu rëy est-ce que yaa ngi dégg ba da ngay ragal mais léegi dañuy dem ba miinal jeunesse bi yëpp kaso chaque jour ñu ngi jàpp nit ndax benn joint yàmba tëj ko nii naa nii nii après yow booy dañuy dem ba léegi kaso mooy indi kaso yi di fees di fees di fees criminaliser yoo xamante ne xam nga jaru ko fi ay drogue dure yooyu nga war a jàpp nit yi tëj leen ay yenn affaire xam nga li yoo xam day détruire doomu aadama xam nga ay sàngara boo ko naanee commencé saagan day jalgati mais tox yàmba dangay ngay kul ngay gis ku tox yàmba day kul dégg daaj ceene àdduna fépp ñu ngi koy commencé di xeex di ko nigalaa amee ah, Sénégal dañu mën a rëyal naan li yàmba yii yàmba day dara xob la bu sax ñu koy tux danga koy dagg bay ko mu saxaat nga dagg bay ko mu saxaat àdduna ñëpp tubaab yi li tax ñu ko doon tere ndax mënul woon di sax seen dëkk li gën a bon mooy naan sàngara umul xuboo si ndeyu ñaaw teef yi loolu la Sëriñ Tuubaa wax naan sàngara xoola moo gën a bon téeméeri junni yoon ndax boo saa daanee sàngara di nga saaga nit di nga def lu bon di nga def lépp mais yàmbaa da ngay gis nit bu ko tux lan lay def nelaw nelaw rek ngay def leneen lan lay def leneen lan lay def doomu aadama àdduna fépp ñi ngi dem ñi ngi koy négaliser gars yi ñi ngi voyager partout dans le monde ñi ngi gis ay boutiques ñi ngi gis ay lépp man waxuma ñu négaliser ko cent pour cent ndax fii Sénégal dafa am religion te religion bi moo tax loolu ñun mënuñu ko négaliser mais dañu waroon def tey jii bu ñu man waxuma par rapport ak man de mais tey jii bu ñu jàppee benn xale benn xale muy def man man xool ñu jàpp benn xale muy tox yàmba tey war nga ko mën a jël ne ko yow amande bi nangam la tey boo ko defaatee ñu yóbbu la digg pale di la baleloo liggéey loo la nga fournir sa dëkk que nga jàpp xale boobu yóbbu ko kaso di fay pénitencier bu ko garder di ko jox mu lekk di ko jox mu naan nga yàqal ko quinze jours mu miin foofu am fa ay xarit génn nekk bandi soo waxee mu ni la ragalatuma kaso ndax xam naa fa am naa ay nit yu fa xam mais tant que mi ngi nekk kumpa di nga gën a moytu si yow mais léegi dama ne affaire yu banal waruñu si jàpp rek yóbbu kaso war na am ay maison de correction war na am ay kii wala ay nii avant sax di accéder ba di dem man foofu laa lay waxee quoi waaw. parce que boo xoolee campagne li fa am ay yamba la ñu jàpp ni ay détenus moo nekk si biir chambre bi ñu dem di. fuy bu fa duggee xam nga ne ñi nekk si kaso bi génnuñu bay bay indi yamba foofu loolu da xam ne dafa am fu bu jaar ba yegg si du si ay bool du si ay dara si nit la jóge ñëw si gaa yi waaw mais léegi même loolu bu fa amee bu amee fuy tamit na am de ah doomu aadama nag da nga dafa am ay li ñu wax am ay droit de ay loolu nii ay lii ay laa yow ñu yàgg leen paqueté ñu ngi nekk fu tàng ñu ngi kii nga gën leen bëgg a teg ay coono mais jàmm dafa neex way doomu aadama bu ne ak ah, lu mu munti def bu boo ko xësee ba tëj ko ne ko ci à tort da nga ko ne war a mettre dans de bonnes conditions ndax yaa ko tëj dafa am budget pour loolu am ñu ñu former pour loolu am lu ñu tabax pour loolu kon loolu dafa war rafet pas rafet waxuma ay rafet luxe de mais dafa war a jaar yoon ko waaw wala xat karam na benn aadama la yàlla wax kon nag doomu aadama dañu war a am picc ci moom ndax doomu aadama mun def ñombe bu ne xëy baax. mais directeur camp bi dafa def benn vidéo di lépp. ah booy blessé woon ci biir ñu ne am na ko si ñàkk bi. moom moo ko mën a moom moo ko mën a confirmer yow mi nekk si biti noo xam exactement li xew foofu. booy. mais léegi après yow man loolu xaw ma si dara quoi ay loolu chef kii bi nu mu tudd di bi du loolu la la wax loolu nga gis si télé bi man li nga gis loolu laa gis. ay booy mais booy blessé yooyu da ngay fexe yow xam nga Sénégal benn journaliste mosagul dugg kaso. léegi exploit boobu nga war a créer def si ay dossier di fexe ba yow noo amee accès def benn documentaire exclusif may ko sénégalais dugg 100 mètres dugg fépp fu am kaso Sénégal nga def fa interview lan man loolu laa lay ñaanal mu nekk un documentaire bu mag ñu def ko ay Netflix ak yëpp xam Sénégal wala waaw man may kaana di booy sikaab nga naan ma ay Netflix yooyu ñun biñ koy xam. léegi ñëw léegi un peu ci projet bi parce que gis nañu fii am na benn projet bu ñu fiy lancé fii ci sikaab pan euh, am ci 3 euh, projet bi fii nu bi ah Pape Samba directeur bi ma xaama bàyyi la mu gën a mu man duma directeur bi quoi euh, jërë jërë ngeen jëf si si li ngeen ñëwee si ñun di di di dalal bu baax suñu star bi Dofu Maam di leen jaajëfal yéen tamit seen teraanga si visibilité bi ñu nekk di bi ngeen nekk di jël pour ñun di remercier suñu xarit bi Maguette xam nga moom citoyen du monde la donc day wër xam nga donc mais sama àdduna DJ sama àdduna yee xam nga donc euh, lii projet bi Amitié 3 Storytelling la tudd académie la bu ndaw dañu créer benn espace bu ndaw bu xamante ne xale yi suñu jógee école wala ñuy taxawalu si mbedd bi wala ñu yàgg si biti dañuy ñëw nekk ak ñoon fii après chaque cours booy dañuy ñëw dafa am ay volontaires yu ñëw tamit ah, di leen dimbali xam nga di leen jàppale si seen ay exercice ah, mais toujours dañuy nekk di jéem a changer tamit façon jàngale bi di def storytelling storytelling mooy maanaam boobu anglais la mais storytelling mooy maanaam da ngay expliquer booy seen ay leçons pas comme lu traditionnel lu ñu tàmm def si biir classe yi. dañuy jël seen ay leçons à travers ay contes xam nga di leen expliquer naka la ñuy def euh, pour ñu mun comprendre seen ay leçons pas di bind xam nga ABCD EFG xam nga pas yooyu quoi mais di ko def si ay façon yu drôle en même temps di utiliser suñu ay contes yu traditionnels di ko utiliser xam nga pour pour ñu mun comprendre seen ay leçons. Ah, loolu loolu mais après am na am na beneen boo xamante ne mooy. studio bi ñu créé studio bi ñu créé am ay guitare am ay lépp fii pour xale yi si wàllu musique ndax duñu leen bëgg di jàngal musique rek sans que ñuy continuer di réviser seeni ay leçons ay loolu léegi moo tax dañuy ubbeendoo lépp dina am ay profit yu fi nekk yoo xamante ne xale bi pour nga prise son il faut nga nekk école di jàng am résultat yu baax comme ni ko waa NBA di defee ñu noonu lañ ko defee ndax dañu am ay relation ay américaine ay française ay loolu ndax fii bi ñu ko ubbee comme kii Espagne la jógee si la bokk am naa ay américaine yu si bokk kii temps yee nañ ko mu dem France pour mu am ay yenn relation ak yenn booy yi ñuy yóbbu ay plage ay loolu fii daal sikab bi yëpp lañ fi woo quoi mais pour musique la pour finalité bi c'est la musique quoi parce mais avant la musique dafa am yi ndey mooy base yi muy wax jàng bi éducation bi di leen yóbbu ay plage di jouer ak ñoom si terrain football bi xam nga ouverture waaw di leen jox ay livre en anglais di jàngale ay anglais ay lépp ndax fii façon xeet bu nekk fii ñëw te booy dañu war a communiquer ak ñëpp est-ce que yaa ngi gis waaw noonu la demee ah, yéen ñu ngi leen di remercier bu baax si aide bi ngeen ñu apporté waaw kii mooy mister del del xam nga moom moom waaw moo mooy suñu kaana bi quoi xam nga donc vraiment merci pour xam nga ni ngeen ñëwee di ñu seet si euh, si aide bi ngeen di apporter si visibilité au centre bi on est ouvert xam nga donc ñu ngi xaar ay ay ay ay ñeneen nit ñu pare pour ñëw c'est juste un projet social bu xamante ne euh, nekk ñu di si ut xaalis xam nga ay millions yu bëri la ngi si def juste pour booyee nekk à l'aise ñu bañ a taxawalu si mbedd bi quoi donc ñu ngi ñu ngi xaar ay aide quoi pas pas pas ay aide xaalis financière kese mais ay nit ñi mun jël seen temps ñoo jox seen communauté waaw exactement am nañ am nañ façon instrument de musique bu nekk am nañ façon instrument de musique bu nekk bu nekk fii kaaw ak yëpp ñoom tamit nañ si jàpp quoi na seen doom yi ñoo fi nekk ama nga au que ñuy dem di aider yeneen ko ñu jàmbur yi di jaay yaa ma gën a xam yeah uh, Je suis pas à Dakar mais c'est comme ma maison parce que j'habite à Espagne mais je suis sénégalais et ma famille habite dans les quartiers donc c'est comme quartier aussi. Et je pense que en tout cas c'est très positif d'avoir un endroit pour les enfants pour développer des activités des euh, de d'apprendre la musique, d'apprendre à s'exprimer avec la musique avec tout. Et c'est bien de, de, de activer, bon, ici, de faire des courses, d'inviter à les artistes de quartier, comme Bator, comme de Fumambamba, pour, pour faire des activités avec les enfants, de ateliers, des chants, de tout ça que c'est possible. Et de, aussi pour, pour, pour les gens pour être plus en communauté. Ça, c'est très important parce que sinon, oui, eh, ça, ça c'est quelque chose qu'avec le temps, tu pars. C'est perdre. On pense que ce n'est pas bon, mais, mais c'est très important de, de, créer des communautés, en tout cas euh, dans les quartiers, parce qu'avec la vie moderne, tout ça. Oui. oui, il, faut, il faut sortir dans la rue, il faut, il faut faire des choses ensemble. Ça, c'est nice, ça, c'est joli, ça, c'est. Ça, la communauté, c'est très important dans, dans, la, dans, notre réalité. Et de créer des choses ensemble, ça, c'est exceptionnel. Ouais, je suis pour ça, toujours. Ouais, ça, on doit s'activer plus, oui. Les quartiers, c'est nice, mais on doit s'activer. Il y a les terrains là-bas, on peut faire des choses là-bas, on peut faire des projections de films, on peut faire beaucoup de choses. Eh, la, la rue, parfois, c'est, tu vois, personne là-bas, ça, c'est pas nice. Tu vois pas les enfants ensemble. tout ça, c'est joli de voir. C'est la vie, c'est d'être ensemble, de, des choses euh, nice. Donc, ouais. Ah oui, of course. non, non, Moi, je, moi, Sénégalais tout Sénégal. Oui, je suis pas touriste. Moi, Maguette Dieng, Dieng Salab. Moi, je suis pas nouveau ici, je suis pas en visite. Mangi Dieng, Dieng Sala <laughs> Oui, et aussi j'invite à les, femmes pour venir ici de faire des, pour proposer des activités de formation aussi, parce que c'est très important d'avoir la diversité. Oui. Ça, va venir, je sais. loo gëm daf ci loo am def ci dafa ma am bamba yaa ngi nii oyof mu yaatu tabe gore la dégg ndigal loolu képp kott dogg la daf ndey gars merci beaucoup tey dafa maam Bamba dafa la ñu seet woon tey moom ñu seqaloon waxtaan euh, tey gis nga ñu ñëw fii HLM CRAC HLM 3 moom la foofu la ñu euh, ñëwoon. Sicap Amitié 3 ah, Karak. waaw Mermoz Amitié 3 Karak Baobab waaw ban HLM. yow may yóbbu ba HLM ñun ñun booy Cap booy pure dur nga turclic <laughs> booy. xaritu doom ndey jaajëf mu nekkoon Ahmed nekkoon euh, nekkoon Cheikh nekkoon Ousin ci présentation bi jaajëf.